Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence au nouveau les merci de du like, merci de d'abonner, merci également du bail des commentaires. Un plaisir renouvelé gars, chaque fois de partager des informations. Inbox Sénégal est fait, faut les maintenir. 14 régions du Sénégal, à nouveau nga kep ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital yi sécurité de feebar. Yalla na suñu borom fëgg seen bopp ngay rek jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne aussi erreur judiciaire ak yéen ñi ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delawaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xare leen àddina fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu actualité bi ñu fas yéene waxtaanee nga xam ne nag moi le Bayern de Munich tenu en échec Sadio Mané qui rate le coche hein, qui rate le coche plutôt Abdou Diallo il a joué qui euh, Bambadien aussi entré en cours de jeu Pas Matassa toujours convoqué mais 0 minutes, lors daal waxtane li jëm nak ci coupe du monde ca Qatar bi wa Danemark mom nak ñom joueurs yi nenañ seeni seen i njaboot ah soxna ak yoy duñu dem ci coupe du monde ndax ñom neen dañuy xex ni euh, nga xamne moy mooy ak yelleef doomu aadama yi nga xam dañ ko salfañe fofu nonu ci coupe du monde limay may nak moy ñom ñoom nji demuñu waaye ñoom dem nañ loolu dal mom moom daal moom xaw a jaaxal ñii également di ay légende du football ah Lionel Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo nag mo ëpp ay match fouf 1133 matchs euh, ki Lionel Messi am 989 matchs 781 buts euh, pour ki nga xam ne Messi 816 pour Cristiano Ronaldo 377 passes décisives pour Lionel Messi Qui nga xamné nak moy donc qui di euh, donc Wayne Rooney Wayne Rooney nak mom waxna na ci li nga Cristiano Ronaldo nee Cristiano Ronaldo Messi nee def nañ lo xamné kenn ko def ci walum football mais tamit buñu ñu A at yi ak temps bi di rattraper il faut également Cristiano Ronaldo comprendre loolu et nga xamné également temps dina ñëwaat Lionel Messi également qui l'a porte à Néna mom Lionel Messi dinañ ko defal li nga xamné nak gaay moy donc mooy donc ab euh, monument ci buntu fofu ci euh, New Camp pour dal di koy rendre hommage dal di koy sargal ki ngeen gis nak di Arthur Arthur ancien joueur du FC Barcelone jaar ci Juventus ñu alko ñi di wa Liverpool mom nak han ah, dañ koy waaj opérer opéré par rapport ak gañu gaañ mi amoon ci entraînement fofu noonu ci Liverpool ab opéré bo xamné gaay day tax nak ki nga xamné moy dal di nek Arthur 2023 bi dal lay dal di footballaat mais 2022 mom xalaatu ko sax ba di football ay coupe du monde Laurent Blanc moom ci boppam ah le l'ancien donc entraîneur de l'équipe du Paris Saint-Germain fimné nak nénañ wa Lyon dal ñu ci ciy pour xol ndax dañ koy daal di indi ndax fimné ni sen entraîneur di Peter Bosz actuellement euh, résultat yi indi baxul dara coup d'arrêt pour également Marseille de ak ki Igor Tudor Marseille te nekk dañ leen a 2 buts à un Ajaccio mo leen daal di dóor fekk ci leen dóor leen lolu ñaaw na lañ leen daal di def ki xamné nak moy donc. Euh, Dimitri Payet aussi le capitaine Marseille mon Dougal le premier jour dans l'histoire hein, de la Ligue 1 française coup de 100 but également en 100 passes décisives lors Dimitri Payet donc il marque un peu l'histoire aussi de Marseille mais aussi son histoire qui a également mais Bamba comme remplaçant hein. donc il a été euh, très percutant également la il en il a voulu donc il match match euh, a forme Bamba mais Marseille était de perdre un point au profit du Paris Saint-Germain Pour que le Paris Saint-Germain nag tey saint ak Reims dañoo gagné Paris Saint-Germain dina leen 4 points Paris Saint-Germain boo xam nag Messi joué wul Neymar ban toc. donc Soler et Sarabia ñoo accompagné Mbappé Bernard, euh, Fabien Ruiz Verratti et Mukele Danilo Marquinhos ak Ramos nekk défense à 3 B. Qui na ngeen également hein, di Ander Herrera Ander Herrera nak moom atteint 350e match hein, dans les trois euh, cinq grands championnats yi nga xam jaar na fa au total il est à plus de 350 matchs ki nga xam moy Ander Herrera mi nga tay ne joué na ni euh, également di classico bi ñep doon xaar hein, donc diggante derby diggante Milan AC ak euh, ñi di Juventus de Turin mu Milan AC mu mujjee do deux buts à zéro Tomori également hein, mu duggal premier but bi di Milanais donc le Milan avec Balotelli ñom tay ñoo daal di gagné et hier nak li nga xam moy samedi bi tey nag ki nga xam moy donc Inter ñom ñoo dóor grâce à Kiam Nanak xam ah. donc leur euh, buteur l'ancien attaquant du euh, de la Roma ñëw tay def doublé donc l'Inter de Milan qui s'en sort aujourd'hui avec Edin Dzeko yi nga xamné également moom donc Leicester Leicester nak tay Stock City Molen len 3 buts à 1 ki nga il a joué mais ils n'ont rien pu faire face à cette équipe de Stock City mi nga xamné euh, alors que eux également ils perdent des points derrière hein li nga donc Leicester parce que ñom ñi ngi viser en prime Ligue vous voyez également hein, Gizgen ngeen qui hein, avec ses chaussettes ni et tout donc le joueur sénégalais qui s'épanouit du côté de Leicester mais Taïdal Dougoloul mais on espère que yeneen match yi dina mën a dugal Main of the match au au moom lañ ko jox tey ndax tey nag moo débloqué situation bi diggante ñii di euh, Manchester City ak ñii di waa Southampton celui qui a marqué un but somptueux un but digne d'un attaquant moom nga ah, défenseur la donc arrière latéral la mais aussi que dire de Erling Bro Haaland gars 20 buts en 8 matchs c'est euh, c'est un record gars 20 buts en 8 matchs exceptionnel 20 buts en 8 matchs pour Erling Bro Haaland Haaland actuellement qui domine le championnat de la Premier League en tant que meilleur but buteur kenn du ko sauf si bu fekkee ñaanalu ko pendant ce temps les Blues de Chelsea qui enchaînent donc 3 buts à 0 lañ do tay à domicile yi nga xamné moy Wolverhampton donc Chelsea sans euh, Edouard Ndiol Koumba mi Dogore Mendy qui enchaîne donc un autre clean sheet pour Kepa donc Kepa actuellement clean sheet da arrangé donc vous montré que aujourd'hui il est donc euh, en train de prendre des points devant Edouard Ndiol Koumba mi Dogore Mendy Kalidou Koulibaly également était tonitruant il a joué le match le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui a fait également un match excellent Wat Tottenham aussi avec Harry Kane ils ont gagné aujourd'hui hein, à l'extérieur c'est avec Brighton par le plus petit des scores un but à zéro grâce à Harry Kane qui se rapproche du meilleur buteur de l'histoire de la Prime Ligue Tottenham et Antonio Conte donc qui retrouve euh, un peu donc le sourire qui nga donc qui Pape Matassar il était encore convoqué mais sur le banc comme d'habitude Pape Matassar donc convoqué mais il ne joue pas bi il ne garde pas son son imp plutôt il garde sa patience di xaar nak jox occasion mais tamit ah comme on dit Pape Matar bu joué dina dina baax résultat yi donc tay ci mi ngi ngeen gis ko ah, donc Bournemouth mo Leicester bu nom Nampalis dañoo daano Chelsea mo Wolverhampton Manchester City Southampton euh, Newcastle d'Alidor également finalement de Brentford 5 buts à 1 le ñi nga donc moy euh, Newcastle di euh, di Borussia Dortmund ak Bayern de Munich c'était le derby donc du côté de l'Allemagne ñep ko don ko xaar deux euh, buts partout le Et donc également du côté du Bayern de Munich on a vu que ils avaient dominé les les hostilités hein. ñom ont dominé won match bi avec ki nga xam après le Sané également Dougal Leroy Sané qui a 4 buts en 3 matchs l'homme fort actuellement hein, du Bayern de Munich Gengisko derrière également Goreska a marqué Moukoko euh, réduit le score mais dans les dernières minutes dans les arrêts de jeu à la 94e minute presque le King ki nga Anthony Bodest, Dari di de la tête le but sauveur notre beau but bi nga permet permet permettre Borussia Dortmund ñu défaite encore une fois si kanamu Bayern de Munich mais c'est une mauvaise chose pour le Bayern de Munich Sadio a joué Sadio n'a pas marqué Sadio qui a été remplacé à la 86e minute par King nga donc euh, Max euh, Choupo-Moting donc Choupo-Moting remplacé Kaiser Mané, donc aujourd'hui, qui n'a pas pu donc marquer un autre but. Sous le regard donc euh, un peu inquiété, inquiet plutôt de Kingham nga xam ne Nagasman, Julian Nagasman, Julian Nagelsmann il fallait que nous gagnions, surtout pour d'aller au haut du classement mais ils ont perdu dans les dernières secondes du match nekk que xam également ah, Bet nañu bëri ki Thomas Müller moi, il a regardé le match ah, chez lui këram la le match à ak xajam ngeen gisoon ni muy match bi Thomas Müller ah, donc l'attaquant du Bayern Munich bi a xam Covid ak euh, le mu jóge ak tolof tolof feebar moo tax yi daal di koy ménager convoqué wuñ ko mais ki nga xam ne moom tey jii actuellement il était hors de lui qui était rouge de rage comme on dit mooy ki nga donc Oliver Kahn nga xam ne dernier but bi ah, dans les arrêts de jeu bi Dortmund dugal da nga da ko assommé gis nga ko ni mu def nii c'est là complètement assommé. Bête Nalem parce que le Bayern y était presque. Le Bayern était en train de faire un autre bon résultat. Mais malheureusement, malheureusement, King Hamne Anthony Modeste, mon Kopsen, Yelwan. Guys, c'était les informations que je voulais vous donner. Bonne performance dans Game Gissé. King Hamne Moy donc euh, Kalidou Koulibaly, Sadio Kaiser, magnifique Mané, Pam Matar Salmi, toujours sur le banc. Ak Bamba oh, et aussi Edouard Mendy. Waylen Lai, Waylen Abonné, Djangin